asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Modou Hicham Mbacké euh, di doomu Serigne Amar Fall Mbacké bu Cheikh Mouhamadou Lamine. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, sëñ Mbacké maa ngi lay nuyu di nuyu itam site bi nga xam ne euh, yéen a ko ame di ñaanal Cheikh Mountakha xalifatul am sunu boroom guddal fanam te àggale ay yéeneem. di ko ñaanal Cheikh Mahamadou Moustapha xalifatu Cheikh Mahamadou Lamine ak sëriñ Abdul Karim mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu sëriñ Abdul Aziz Bara Mbacké gépp euh, sëriñ Sidi Ahmed ñu gën koo xam ci sëriñ Sidi bu sëriñ Abdul Aziz euh, li nga xam ne moom nga ci laaj euh, yaakaar naa du jafe ndax jëmm la joo xam ne ñëpp ko xam Euh, ni ko ñëpp xamee nag euh, ci jukko yu rafet euh, noonu la ko ñëpp xamee ci bëgg ak mbokk ak itam nekk ab bi boo xam ne dara ñorul lu lu dul ab taalibe di ko xam ne li ñuy wax makaarimal muy jukko yu rafet yépp moom da koo làmboo. yaakaar naa loolu rek firnde ji nga xam ne mënees na cee joxe te mooy ju gàtt moo di waxtu nekk nit ki boo ko bëggee xam dangay dem ci ay mbokkam nga laaj ko ko te sëriñ Sidi Ahmed moomu sëriñ Abdul Aziz képp koo xam ne bëgg nga koo xam boo ñëwee fii ci guy mbind euh, fekk ko fi du jar nga koy laajte ndax danga fi fekk mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké gépp ci biir këram. waaye du yam rek ci njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine mboolem yoonu murit wi kër goo kër goo fi jël rek da fa fekk kenn ci njaboot googa ñuy ñëw waxtu nekk di toog ak moom di maslaha ak moom ngir jukkoom ju rafet ak yaatal goo xam ne yaatal la ko ci ak mbokk waaye yaatal goo xam ne yaatal la ko itam ci ci ci ci biir kër euh, Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ba tax na bu fi nekkee waxtu nekk ku fi ñëw da ngay laaj sax lan moo xew fii e, ci kër gi e, fekk ne yaatal gi nga xam ne moom la yaatal te loola muy ndono ndono loo xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine amoon na ko ci e, Cheikhul Khadim ci mbooloo daan ko ñëwal waxtu nekk ndono loolu it Serigne Abdoul Aziz Bara mi nga xam ne nekkal na fi Cheikh Mouhamadou Lamine te doon ko liggéeyal ci liggéey bu gën a yaatu te gën a rafet. te sëriñ Sidi itam bokkoon ci njabootam ki nga xam ne waxtu wu nekk dañ daan taqoo ak moom moom sëriñ Abdul Aziz yaakaar naa ko kooko miinoon miin sëriñ Sidi Ahmed ci wetam sëriñ Abdul Aziz doyloo woon ko ci lépp daan ànd ak moom di ko yónni fu bari waaye di ko bàyyee xel di ko déglu ci yu bare bare bare naka noonu it xalifa yi nga xam ne ñoo fa wut sëriñ Abdul Aziz mu sëriñ Moustapha ak euh, sëriñ Modou Baara ba sëriñ Abdul Karim noona kenn ku nekk noona doxalin woo sëriñ Abdoul Aziz doon doxal ak moom moom ngay doxal sa diggante ak sëriñ Sidi sëriñ Sidi itam kenn ku nekk ci ñoom doxalin doon doxal ak ngoo jërëmoo sëriñ Abdoul Aziz moom lay doxal ak yow te mooy doxal doxalinu tënku ci ak taalibe euh, nangoo woyof waaye nangoo joxe aw ñaqam hadiya euh, loolu bokk na ci jukko yi xam ne xam nañ ko ci sëriñ Sidi te Euh, jukko yooyu nag mooy jukko yi am solo ci doomu aadama ndax buñ tuddee woyof xam nga woyof day màndarga walla day loo xam ne mën naa joxe daraja euh, ju kawe kawe kawe ci ci bi ndax ku nekk xam na ne rëy euh, wala iyaasu billah yàlla nañ ci suñu borom musal bokk na ci jukko yi nga xam ne képp koo xam ne amee na ko rek mën naa mujj doon ko suufe lool waaye ki nga li nga xam ne mooy jukkoy woyof képp koo xam ne suñu borom defal na la ko man nga bokk ca ña xam ne ñoom la suñu borom gën a yëkkati te uh, sëriñ Sidi Ahmed bokk na ci ay jukkoom muy woyof nangoo uuf ñëpp rawatina njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gi nga xam ne mën nañoo wax ne tey uh, bu fekkonte ne am na koo soxla tey ci njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara boo déggee ne sëriñ Sidi Ahmed ñëw na fii ci Touba rek jëlul ngay dem kër kooka di ko fa seeti waaye ñëwal kër sëriñ Sidi nga xaar ko fi euh, bu su ko defee euh, boo ko fekkul kooku daal la fa fekk muy koo xam ne itam nit ku dëggu la ku jàpp njàmbaram ku nangoo jaamu yàlla waaye ku nangoo taxaw ci euh, soxla doomu aadama yi rawatina mbokk yi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Touba mooy ñii tuddee ay sëriñ ak ñii ñu xam ne dañu leen tuddee ay taalibe xeebalul kenn soxlaam di ko doylu itam Euh, koo xam ne lëggéeyal sëriñ Touba jaral na ko euh, yendu àll jaral na ko fanaan àll dafa bëgg nit ku tabe ba yonente bi sallallahu wax na ne nit euh, yéefar bi xam ne sax dafa tabe boo liggéey sunu borom du ko du ko lakk ngir tabe nga xam ne moom la tabe te sëriñ Sidi Ahmed ku xam na ko ci ak tabe waaye muy nit ku dëggu koo xam ne xëccoowul dara xëccoowul dara lépp lu ko maamam Serigne Touba ak Cheikh Mouhamed Lamine Bara sedd loola da koy doyloo euh, ko di koo xam ne itam mboolem mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di njaboot Serigne Cheikh Mouhamed Lamine dañ koo doyloo woon doon ko bàyyi xel euh, ni ko Serigne Abdou Aziz way jëloon wa doyloo woon nan la ko euh, Serigne Bachirou Khoudia ak Serigne Ahmed mi nga xam ne moom lañ ko tuddee ba ci Serigne Sidi Mokhtar mi nga xam ne. Euh, moo fi jógee bu yàggul ñu di ko ñaanal suñu borom dolli lañu koo fayal noonu la ko doy woon ba cër bi nga xam ne tey kenn ku nekk mi ngi dégg ñu ñu di ko tudd ci wàllu euh, mairie bi cër boobu du cër boo xam ne cër bu mu sàkku woon la waaye Serigne Sidil Mokhtar ci doyloom moom moo gis ne Serigne Sidi mii ku fa war a nekkal la mu doyloo ko ci Serigne Sidi féete ko foofa nekkal ko fa mosu faa def lenn itam loo xam ne lu safaanu la ci nekkuk sëriñ bi ba ni fi sëriñ bi jógee it nga xam ne bëggut xatal wala wala muy seene kenn euh, dafa jëlaat cër boobu dellowaat ko ki nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba mu Cheikh Mouhamadul Mountakha Cheikh Mouhamadul Mountakha amaat ci moom confiance am ci moom ak doyloo dellowaat ko cër boobu ngir mu weelu ko kon jëmm jooju yaakaar naa ne euh, loolu rek. doon na doy ci ñu seede wu ngir ñu mën koo xam